macha allah mu am solo lool ndax euh, bi weer wi teroo ak léegi euh, ñu ngi taxawal burdu bi guddi ko jot ñu fàttaliku jikkoy yonent bi waaye ànd ko ak njaboot gi euh, ñu sant ci yàlla bu baax tey ziara bu baax xalifa bi Serigne Mounirou Ndiéguène di ko nuyu di ko ziar di ko ñaanal suñu borom guddal fanam te may ko wér ñaanal ko ak ay rakkam yëpp waaye ñu ndokkale leen ci weeru tedd wi nga xam ni moom la ñu taxawu te di leen ci ñaanal ñu fekke waat ko at yu bari Euh, mbokk yi ñu fas yéene am ak jotaay ki nga xam ne mooy Ahmed Sall Ndiéguène euh, mi nga xam ni mooy yor euh, communication bu kër gi ngir fas yéene waxtaan ak moom ci anam bi nga xam ne tey moom la ñuy màggalee waaw ñu fas yéene ci waxtaan waaye waxtaan wu yaatu lay doon ndax incha allah bëgg nañu fàttali ko jikko yonent bi waxtaanee ki nga xam ne mooy sang sang yi ci jikko yi nga xam ne moo taxoon sunu borom tànn ko yebal ko ci aw xeet bi aw xeetam ngir mu mottali jikko yi yàqu yi nga xam ni moom la fi fekkoon ginnaawam it ñu seetlu ni jikko yi am na lu ci des ba léegi loolu incha allah suñu amee dina ci fàttali lenn ci jikko yenent bi waaye soññ ci njaboot gi bu ko defee ñu nuyu ko bàyyi ko mu nuyoog mbokk yi seetaan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 di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii nga xam ne muy guddi juddug yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan ci yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu ko yàgg def amiin di ñaan ci yàlla subhanahu wa taala itam mhm. yërmandeem ak cadeau bi nga xam ne nii moom la ñu joxe yonent bi salaay salaam ñu ngi ñaan loolu yàlla nañu ko muurloo bi jaay Mawlana Muhammad salaay salaam di kontaan bu baax mhm. ci dalal gi ngeen ñu dalal fii ci plateau bi mhm. am na solo bu ko defee ñu sant ci bu baax ndax nii lañ ko defee woon daaw ñu ñaan yàlla mu may ñu fekkewaat ko at yu bari euh, Cheikh Ahmed xam naa ne waxtaan ren gi bëgg nañ ci njëlbeen gi nga fàttali ñu ki nga xam ne mooy Ahmed Baro Ndiéguène mi nga xam ne mooy borom pénc mi Euh, te liggéey fii liggéey bu rëy bii liggéeyal ko lislaam nga fàttali ñu lenn ci euh, njëlbeenam ak jikko yi nga xam ne amee woon na ko. jërëjëf euh, Cheikh El Hadj baro Baro radiyallahu anhu dañuy wax ni bu ñu nee njëgëneen ñëpp seen xel yaakaar ni Cees la. Mm-hmm. waaye cosaanu njëgëneen ca Saalum la. Mm-hmm. ci dëkk bi ñu naan kafrin mm-hmm. ca Kasaas. foofu tabaarakallaahu fa la El Hadj Baro. gane àddina hmm. ndax ku ne xam ne ni la beleel ak kasaas hmm. maat moo nekk beleel te maat moo jur medun hmm. medun moo jur alaaj ahmadu baro alaaj ahmad baro moo jur alaaj ahmad saxiin jegéen ak i rakkam kon Cheikh Alhaji baro way juróom mu ngi tudd medun jegéen moom nag nitu yàlla bu mag la woon mooy baayam jàngoon na alxuraan mokkal alxuraan xam alquran xam maanaaya xam zahir ak baatin bi nekk ci biir alquran yépp xeetu xam-xam yi nga xam ne yëpp it tabaarakallaahu moom la doomu soxna di xam jàng na ko ba xam ko moo waral moom moom le la Cheikh El Hadj Umarul Fuuti radiyallaahu doon def jawalam yu rëy yooyu le ñëw fekk ko foofu ci kasaas jox ko wirdu salaatul fatiha jox ko mbootu tarixa bi ne ko lépp loo xam ne nii aju na ci tarixa bii war nga koo mën a joxe di nga ko joxe ndax jox naa la ci ndigal ca tabaga moom moomu nag medun tabaarakallaahu moo jur alaaji ahmad baro alaaji ahmad baro wooy juróom bu jigéen faatumata ndaw la tudd faatumata ndaw bëlëm man ndaw moo ko jur kon moom ci wàllu wooy juróom bu jigéen ay buur lañu. te bu toogoon moom mooy doon nguur ga waaye daf ko fa bàyyi nawet jot mu bay ba jot dugubam jot gerteem jot jot mboqam daal di jël sàq yi defar ko ba mu baax duy ko ay vivre ak dund yu fees dell xaddaat li nga xamante bi ne mooy euh, néeg yi xëddeen yu màgget yi mu dind ko sàkket ko ba mu daj ñëw ne woy juróom dootoo soxla dara ndax lépp defal naa la ko waaye dama fas yéene laxas nag tabaarakallaahu uti ji xam-xam dolli ci li ma am. Mm-hmm. ndax sama bàyyi tàmbali naa ak man def na li ma war def ci man yëpp waaye nag ma fas yéene laxas uti ji xam-xam. Mm-hmm. tabarakallaahu mm-hmm. kon nag na nga préparé yow sama ndey ah di nga ma ñàkk. ñàkk gi mooy dinaa la sori. ah dii li faq di masta tanti na sabri. waaw na nga préparé muñ ma bu baax a baax a baax a baax. ndax dinaa laxas uti ji xam-xam. dolli ci li ma am ba am dinaa faatoo dëkk boo xam ne nii toq toq rango dina fa néew ngir ñàkk guñ ma fa ñàkk xam ci la laxase nag ñëw tëngéej góor gi Birane Cissé di la xeetu xam-xam yépp mu xam ko Birane moomee moo ko jàngal lépp loo xam ne nii tabaarakallaahu nit ku baax war na koo xam sama maam Alaaji Mat Baro nekk ak moom foofu la ci gàttal def fa ñaar fukki at ba benn bis ma Birane siise dugg xalwa ci biir xalwa bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu gis ko mu ne ko yaa ngi ñaan pour ñëw penku muy màkkatal mu karram di nga yegg seeg jàmm waaye nag da nga xam ni dootoo dellu réew mi nga jóge mu di Sénégal ndax foofu ngay des ci la la woo Alaaji Ahmad Baro na ko fas yéene naa dem penku waaye soo ma gisatul na nga dem mottalee sa tarbiya ci Chérif Sidi Mouhamad te la nga xam ne nii góor gi moom la jëloon tabaarakallaahu lënkale ko ak njàng moomu def na ko sa ndijaay laa xàqan waaye nag li may warloog yow ngir li nga soxla ci wàllu xam-xam nga am ko te mu am barke moo di tabaarakallaahu li sama njaboot di dunde ci dugubu suuna lay bàyyi koo cere lay doon mais cere ganaar lay doon waaye nag ma ko fàggul góor gi d'accord ko te yalwaaniwu ko ñaani jiwu ko nekk ak moom foofu ba moom nag bi mu ko gisatul ba mu demee ci la dem nag ci sérif Sidi Mouhamad eggale fa tarbiyaam te shérif boobule borom xam-xam la moo jur Abdoul Aziz Mouhamad maam El Hadj Modou Boro tudde na ko doom muy maam Sidi Ndiégane tudde maam Aziz Ndiégane mii caatam doomu Chérif Sidi Mouhamad tabaarakallaahu boo demee ca Tëngéej ca Joor ga mu ngi tëdd foofu nitu yàlla bu mag a mag la sëtu yontu yàlla Mouhamad la sallallahu alayhi wa moom moomu nag moo yebal sunu maam ne ko nag. sama maam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daal sa mission mu nga ca mu jànqeen. Mhm. kon nag na nga dem jànqeen muy Thiès mhm. foofu ngay defee sa mission. macha allah waaw muy loo am solo euh, tegtal baa ngi noonu waaye fàttali gaa ngi noonu euh, ndeke ñi nga xam ne ñu ngi doon dégg suñu maam Ahmad Baro Ndiéguène Euh, cosaanam nekkul woon Thiès. Mm-hmm. Euh, fii dafay ñëw ngir yegg yeggale liggéeyam. Mm-hmm. Euh, jàllale jaam ñi yóbbu leen ci suñu borom. Mm-hmm. tubaarkàlla bi mu ñëwee mission bi macha allah taxawee na ko ndax tey sampam bii fii ci penc mi ku fi ñëw xam ni liggéeyu mag ñi macha allah yal na yàlla dëgëral ko waaye fii moom dëgëral dëgër na fi. ñu sant ci yàlla bu baax a baax. waaye sëñ bi dinañ ñëw ci xeeti tarbiya ndax mag ñi ku leen wax. xam ne daan nañu am ay xeeti tarbiya yaa xam yoo xam ne daan nañ ko defal dongo yi mhm. lan nga ñu ci mën a fàttali ci tënk waaw euh, tarbiya moom ñaar la ndax nitu yàlla yi mhm. sama maam ala jaxman jigéen dafay wax ni euh, mbonaat du nàmpal doom ji mhm. un mu ne du nàmpal doom ji daf koy xool rek mu regg gis nga doomu mbonaat wala doomu un boo gisee buy door a judd da ngay gis ne gémmiñ gi yëpp dafay tëju day mel ni dañ ko ñaw te moonte ndey ji moo ngi koy nàmpal ci ay bëtam am na nitu yàlla yoo xam ne bu ñu lay defar da ngay jàkkaarloog ñoom nii rek ñu defar la Seydina Cheikh Ahmed Tidiane yi noonu la meloon mm-hmm. Chérif Alfatimi wax nañ ne bisu altine ak bisu aljuma da daan solu ba jekk sol manto yéet ci kaw fas wi di dox ci biir marché yi pour nit ñi gis ko ndax ku ko gis rek tabaarakalaaw mu defar la waaw moom noonu daan na ko def mm-hmm. maam alaaji nag daan na wax ni wëlliyu nguur yi moo am ak wali yu jargoñ waaw wali yu nguur yi ak wali yu jargoñ am na nitu yàlla yoo xam ne ay wali yu lañu boo leen liggéeyalul ñaqaloo leen duñ la liggéey duñ la fa duñ la defar duñ la defar fokk nga liggéeyal leen fokk nga gëm leen soo ko defee incha allahu lañ lay def loo ca lañ lay defar man benn bis sama maam Cheikh man jigéen ci ay ay tànkam laa doonoon man fa mu daan yabal ay doomam di fa yabal tabaarakallaahu yeneen i sët yu dëgër fa la ma daan yabal la may doon doon gone te booba xale la mu jël ma boole ma ak Serigne Cheikh Kandji Njëgër tabaarakallaahu di ñu yabal benn bis mu wooñu ne nañu ñëw bi alaaji ba papa yi ñoom Amadou ba ñëwee fëgg ne wuyul sa maam damaa gaaw xëppoo ndox rek daanaka sama yaram wi sax fomp ko waaw sama bopp bi booba mu ngi mel ni boppu xale bii waaw waaye ndox mi mu ngi rogalaat ci man mais solu naa daw naa maa ngi sol basin bu bleu ñetti morso daw ñëw toog mu ne ma ana Kandji ma ne ko Kandji kat def naan mu ngi kër kër papaam kër maam Ousmane fekk yabal na Cheikh Kandji pour mu ñëw Cheikh xaw a yeex ma njëkk ko fa man ndax boobu maa ngi jóge kër sëñ Muniru bi ma ñëwee toog Cheikh Kandji bi mu ñëwee góor gi mel ni lu xaalu ne bu ma leen woowatee li ngeen gaaw ñëw yéen ñëpp ku ci nekk li ma lay def loo ci laa lay defaree. mënu leen ma jox xaalis. mënu leen ma liggéeyloo ci dara lu dul lii ma leen di jox muy ay mission ma di leen ko doxloo. ci laa leen di defar. kon nag ku ma ci woowati ne la jógal. loo jàppoon nanga ko bàyyi incha allahu dinaa leen defar. kon nga gis ni wëliyu nguri la woon. nguri mooy fekk saxu dee aw wel mu di ci def turu yàllaam di ci def turu yàlla ba sax wa dund. di yëngatu muy continuer di ci def turu yàllaam di ci def turu yàllaam ba mu sax ay laaf mujj gi moom nguri bi bu naawee dem sax woowule day naaw dem topp ko nitu yàlla yi dañ lay jàpp doon doon dara doo xam dara dañ lay branché defal la tarbiya defal la tazkiya ba nga xamante bii ne tabaarakallaahu duñ la mën a xàmmee teg njabootam waaye nitu yàlla fii ak mu ngi lay bàyyi ba muñ la xoolee xam ne yow ab taalibe nga avancé woo demoo ca kaw defaruñ la dañ la war a defal tazkiya maanaam defar la intérieurement puisque nit ki biiram bu defarawul zahiram du defaru te ñaar rek moo constituer nit muy zahiram ak baatinam ba bi mooy matière bi mooy yaram bi baatin bi mooy ruux gi te sa ruux fokk ñu namm ko defar ko ba mu sawar a jaamu yàlla attan yu bari attan xiif atten mar atten gis nit am teraanga tabaarakallaahu nga yéene ko ko atten attan laaw nga ñàkk sa poche yëg ko mais sa dignité du ko yëg sama maam Alaaji Malick daal wax ni lu ngeen banque banque banque banque banque banque naka seen poos yëg waaye seen dignité bu leen ko bu mu ko yëg ndax nit dem na ba tabaarakallaahu mu jaay dooleem maanaam jaay dooleem bàyyi jaay boppam ngir rek lu mu am moo tax borom maqaamatu xariir yi loolu la wax mu ne la ba junni di am valeur junni mm. bari na jigéen joo wéetal mm. wàcc nga ko ndax junni mm. waaw nga jox ko junni def loo ko lu naqar yàlla mu na mm-hmm. mu ne bari na borom ferñeent ku mer ba kanam gi nga gis ay lueur di ci génn nga wéet moom jox ko jox ko junni mu giim mm-hmm. moo tax euh, euh, ñu ngi ko tuddee ci ci maqaamatu xarir yi borom ñaari kanam yi mm-hmm. xaalis waaw moo tax nag dañ lay jàngal doylu ñun alaaji man jigéen jàngal nañu doylu ba nga xamante bi ne dara fuqul suñu bët suñu bàyyi loolu la def ci ñoom ñu yemale luxe nag ak ñàkk luxe kon moom daan na defar taalibe yu bëri am na taalibe boo xam ne nii defaroon na ko ba mu yegg ci moom alaaji man jigéen da nga wax de defar taalibeem ba taalibe boobule mujj yegg ci bépp oto bu ko romb moteuru oto ba ismulaay azam ba nga xamante ni moom lay sikkar xam na ko xobu garab bu toogee nii garab gu jaayu ismulaay azam ba nga xamante bi ne moom la garab ya di di di di di sikkar xam na ko moo tax mu tasawi fuuna yi dañuy bañ nga romb garab sax da ko ruseet sànni ëpp naa def ëpp naa def puisque nature bi nga xam ne nii moom la ñuy dund ak ñun complémentarité complémentarité la ak ñun puisque quatre-vingt-quinze pour cent oxygène boo xamante bii ne nit mu ngi koy noyyi quatre-vingt-quinze pour cent yëpp mu ngi génn ci ndox quatre-vingt-quinze pour cent oxygène bii ñu noyyi ñun ci ndox la jóge te yàlla nee na lépp lu ma bind maa ngi ko maa ko cosaan la ndox la tazakkar jamili fii ka iskunta nutfatan wala tansa taswiri li shaxsika fi lxacha wa sallim li al achyaa wa alam bi anna ni usarrifu ahkaami wa afalu ma waa ja day wax ni tasakkar fàttalikul jami lii lu rafet li ma def man yàlla fii ka ci yow iskunta nut fatanta ba benn toq ndox nga waaw benn toq ndox ñun góor ñi dañoo ëmb bu wasin jotee ñu wasin ko ci ruxu mu jigéen ah? ay ay ay milliards spermatozoïdes ñooy daw ku ci nekk bëgg a benn moo ci échappé waaw yàlla def ko ci ruxu jigéen waaw al arham xoolal lool nga nekk fa tabaarakallaahu muy def ay changement ci yow lumbu deret mu mujj nga doon suux wu ñu yëy tabaarakallaahu mu def ay yax ngay desale lant bi ndey ji di waccu am yu mu yëg ci biiram biir bi li muy xat xat xat da dem ba mel ni tabaarakallaahu astronaute bu nekk ci biir navette spéciale yàlla def cordon ombilical boo xam ne moo relier ndey ji ak liir bi lekkam naanam nooyeem déggam yépp foofu lay dépendre ci moom moo jigéen bu tollee ci xaal yooyu boo ko merloo doom ji bu juddoo day weex waaw xoolal loolu ndox moomu suma borom subhanahu wa taala ne def naa ndox moomu muy liquide amniotique ngir variation de température yi def naa am liquide boobu boobule ngir microbe yi nga xamante bi ne tabarkaale ñooy perse nday ji mm-hmm. bu ñuy du ñu yegg ci liir bi boo dóoree nday ji itam ndox moom mooy amortir choc bi ba choc bi du yegg ci moom boo demee réew moo xamante bi ne muy France en hiver nga xam ne day glace day day day day day nugg ci liir bi nga dem Tamba mu tàng yàlla def ndox mu sedd ci liir bi ba juddoom jot ndox moomu mooy dégagé ba pare bu ndox mu dégagé woo liir dooru judd kon quatre-vingt-quinze pour cent wu doomu aadama yëpp ndox la ba ci liquide bi nga xamante bi ne mooy liquide précieux bi nga xam ne moo nekk ci biir nit muy deret sax cosaanam ndox la couleur bi dafa jaune moom waaw te it ndox moomu le liquide boobu le bu nee la deret dafa xon xonqul waaw globules rouges yi ñoo koy jox la couleur rouge te globules rouges yi sax amuñu la couleur rouge hémoglobine yi ñooy jox couleur rouge bi globules rouges yi ñu wàllu ko deret bi waaye deret tabarakallaahu cosaanam dafa jaune waaw te la médecine c'est une partie de la de la philosophie philosophie boo gis ak médecine ñoom ñoo ant moo tax yàlla subhanahu wa taala wax ni jaar naa ak yéen foofu le yéen doomu aadama kon nag tarbiya bi nga xamante bii ne nitu yàlla noonu la war a defal tabaarakallaahu ab taalibeem faaw dina ko jaarale ci ay ci ay yoon mm-hmm. liggéey loo ko mm-hmm. am na ci ñoo xam ne rek dañ lay jox ay ismulaay azam mm-hmm. ak yu demee noonu am na ñoo xamante bi ne dañ lay liggéey loo nga nga nga liggéey defal leen dara ñu gërëm la mën la defar alaaja man jigéen nag lim ñu daan defare ñun suñu mission la ndax amuñu xaalis boo xamante bi ne ci lañ daan defare da lay yónni nga dem doxi li ngay doxi incha allah la muy def ci yow mu def la ko. macha allah waaw jërëjëf Cheikh Ahmed Ndiéguène. Mm-hmm. tubaarkàlla waxtaan wi am na solo bu ngeen ko dégloo muy wax ngeen xam ne borom xam-xam la. Mm-hmm. ndax macha allah dina leeral ci aspect yu bari. Mm-hmm. Euh, ndax dëgg yàlla li mu leeral. Euh, yaatu na ci xam-xam tubaarkàlla bu gënoon a am temps danañ ci gën a dugg ak moom toj ko waaye dañuy ñëw nag ci borom guddi gi waaw ki nga xam ne moo tax tey réew mi amuñu jàmm ñëpp bàyyi nañ seen yitte dara xewul benn jubluwaay rek mooy am muy daje ngir màggal juddug yonent bi. Euh, maam Ahmad Baro Ndiéguène naka la ko daan def ak njaboot gi. maam El Hadj Baro Ndiéguène ku bëgg yonent bi la. sallallahu alayhi wa sallam. waa këram waa kër yontu yàlla Muhammad la leen tuddee. waaw. yàlla defit tabaarakallaahu muy ci la rëdd kër maam El Hadj Baro ba pare tàmbali di gàmm. Mm-hmm. waaw. tàmbali di gàmmu di ko gàmmee ci aspect boo xam ne nag bu doy waar la ndax kaa ngi lay woo ñi nga xam ne ñëpp ay taalibe lañ mokkal alxuraan ku ci nekk mu lay jàngloo uh, baqara ba minal jinnati wa naas ñuy wër di dox diggante kër gi ak guy gi ñuy yor sayfi yu ñoo ngi liggéey sayfi yu ñu yor xisbul yi ñoo ngi liggéey xisbul baxri ñuy def salaatu ala nabi ñoo ngi koy def ñuy naafile ñu ngi naafile laaw yor seen kurus góor gi noonu lay nekk ak ñoom ba buy bë bët di bëgg a set mu door a waxtaan ak ñoom delloo leen ci seen borom ñaanal leen yàlla ñu daal dem loolu def na ko téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñeent puisque ci ren ñu ngi ci cent trente neuvième édition macha allah kon gàmm gi ah dama ne yaakaaruma bu gàmm gu ko mag ci Sénégal de mm-hmm. gàmm ala jëmat borom bi mm-hmm. puisque mag ñi mu jëm bokkaloon jamono itam ñu ci bari yàlla def na moo leen mag waaye mu daan gàmm gàmm googule ngir defar jikko yi que philosophie euh, euh, gàmm muy xikma bi du dara lu dul refeeraat suñuy jikko waaw yonent bi mooy masalul aala lépp loo xam ne nii dañ koy wane ci nit rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ci gën moom la am afala tafdil masalul aala moo di koo xamante bii ne la mën loo ko jam ci fenn ndax suñu kilifa yëpp mën nañoo wax ci ñoom lu baax a baax a baax mais am na yoo xam ne ñi ma faa yegg ba mu des yonent bi yonent bi lépp ma weex tàll douze mille en la ko suñu borom sala euh, subhanahu wa taala préparé moom yonent bi utal ko ndey ju baax utal ko baay bu baax utal ko askan bu baax giir xurees hachimi ñooñu ñëpp ay tànnet lañ ci li xamante bi ne moom la moom lañ def jël màkka muy dëkk boo xamante bi ne mooy sangu dëkk yépp mu judduloo ko fa jël a war nga xamante bi ne tabaarakallaahu moo gën a tey ci àdduna mu def ko mu di këram waaw moom yonent bi salaa salaam moo tax yonent bi salaa salaam am na ci xar xarni benn nitu yàlla bu mag dafa wax ni yonent bi jaaru fi sax daanaka takkandeeram rek moo fi romb waaw ndax lépp ma mat waaja loolu la ko waxoon da ko waxoon ne ko xulixta mubarraan min kulli haybin ka annaka xat xulixta kama tachaau ahlul fasaxati turran bi sana madaxu wa anta walaysa yudraku bil akwaabi tayyaaru waaw xulixta dañu la bind yooyu yonent bi salaa salaam mubarraan ngay aji deñ di set min kulli haybin ci bépp ayibu doomu aadama xam nga nit parfait wul waaw man nga ne Amar Sall njëgeen kat tabaarakallaahu rafet na waaye dafa njool ba xuuge yooyu mën nga ko wax nit day am sikk ba mu des yonent bi salaam waaw ka annaka xat xuliqta kama tasha dafa mel ni yow yonent bi dañ la bind dégg nga comme ni mu la neexee nga ne yàlla sama nopp defal ma nii sama bët defal ma nii sama nangam defal ma ko nii waaw dafa mel ni dañ koo bind comme ni mu bëggee ñu bind ko ko mu ne ahlul fasaxati kaabu ibnu zohir ahlul fasaxati xasan ibnu saabit turan ñoom ñëpp fi sana madaxu tagg nañ la yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante walay sa yudraku bil akwaabi tayaar tànqinu koog ci géejug mbuur taxul géej jeex waaw benn waay bu ñu wax Youssouf Ibrahima Nabahani loolu la ko wax lam yabqa lil bulaxaai fadlun baada ba bi kal ayaatu min rabbi sama lam yabqa desul lil bulaxaai ci gaa yu éloquent yi fadlun benn ngëneel bu ñu mën a wax baadama nataqat gannaaw bi nga xamante bi ne tudd na bi kal ayaatu min rabbi sama yàlla wax na la ci alquran yow yoon sallallahu alayhi wasallam ne la wa innaka la ala xuluqin azimin kon gars yi nañ defaraat suñu jikko yi mission yonent bi bi gën a rëy sallallahu alayhi wasallam mooy defar ñëw defar jikko dafa waxoon ni innama bu'istu li utammima makarimal axlaaqi dañu ma yonent dañu ma yónni man yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour ma ñëw mottali tedd ngay jikko yi puisque am na jikko yu jiitu woon mais dañoo desee mat waaye bi mu ñëwee dafa mat moom yonent bi bokk na ci jukko yi bu la jekkuwaan man laa duma da baal moom yonent bi waaw taayif lu bon lu nekk def nañ ko ko l'année du chagrin nga xamante bii na ni entourage am ñu ci nekkoon ñëpp faatu nañu ñu génne ko màkka mu dem waa wàllu kër ndeyam ah taif ñu dàq ko sànni ko ba xaañ ko moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam yàlla mu tëdd ndeysaan mu nga ñëw kat tëdd ca ca ca ca màkka ak basang ci kaaba taatu kaaba gi te booba gars yi idolâtrie mën nañ ko ñëw fekk ko foofu rey ko nekkul woon ci benn benn ximaaya mais mu tëdd ndax jaaxle ci koo xam ne nii lu yàlla bind moo ca gën jibril ñëw na ko pëkk pëkk mu jóg mu ne ko yàlla nee na nga ñëw dalay lay recevoir ci asamaan yi waaw xoolal ma loolu di ko récompenser ko loolu euh, Moussa ñaanoon na ko yàlla ne ko dama la bëggoon a gis ci àdduna la ko doon laaj te moo demandé woon audience yàlla mayu ko audience puisque nee na ko dinaa sakk lenn ci sama leer sànni ko ci montagne bi su fekkente bi nag montagne bi mën na contenir ah, li ma fa yabal di nga ma gis su ko mënul doo ma gis ba mu foree benn benn benn leer bu tuuti moom yàlla rek sànni ko ci montagne bi dafa toj explosé Moussa daanu xëm bi mu jógee dafa tuub ca Sina mais yonent bi dafa tëdd yàlla ne ko yow kaay ñu recevoir la foofu diggante boobu nag léeg-léeg nga dégg isra wal mi'raj isra mooy doxub guddi mi'raj mooy yëg gi mu yéeg ci yàlla mais pourquoi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógewul màkk directement dem ci asamaan sax lu tax mu di jóge dégg nga subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa mais pourquoi jógewul màkk continuer mais dafa jóge màkka dem baytul baytul maqdis muy muy Alaska mais loolu gars yi dañ ko war a laaj ak it ci temps record bi mu ko def loolu dilatation la lay jàngal puisque le temps sa dilate le fer sa dilat Jibril bi muy ñëw di ko fëgg ne ko lële alburaax la te alburaax doon doon jëmm joo xamante bii ne nii laaw fasa ko ëpp waaye tabaarakallaahu moo ëpp moo ëpp doole li nga xamante bi ne mooy mbaam weex tàll te alburaax ba nga xam ne nii moom lañu tànn alburaax la ca alburaax ya de da daan toog di julli di ñaan yàlla moom alburaax boobu di ñaan yàlla ne ne ko yàlla terale yonent bi war ci gannaawam di woor di jaamu yàlla di ñaan loolu moo tax bañ ko désigné ne ko yow la yow la yonent bi di wër ba ñu ñëwee ñu yeew ko muy baj baj jibril def na ko na nga teey puisque kii di war ci sa kaw lu yàlla bind moo ca man lu yàlla bind moo ca gën lu yàlla bind moo ca raw te yonent bi ce qui est impressionnant mooy koo xamante bii ne moo jàngal ñëpp te jàngul al ummi yi boo ko bindalee lettre nii du ko xam du ko xam waaye Jibril ba mu taseeg moom ci xaaru xeda bës googu trois jours la trois fois la da doon delloowaat contact ruuxu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne yonent bi moo mën a jàngal Jibril puisque yonent bi du moroomu Jibril yonent bee mag Jibril keroog bi ko yàlla di recevoir ci bureau yàlla Jibril mënatu la dem dafa taxaw ne ko benn pas su ma ko defee comme mèche bu jigéen euh, jël sànni ko ci safara non damay lakk mënatu ma dem trame cosmique yooyu ah yonent bi rek moo ko mën a traversé ndax am na altitude boo xam ne tey yow boo fa demoon da ngay dee mais yonent bi yéeg buraax nga gis ni alburaax fu bët bi tegu tànk bi tegu tegu na fa boo jàngee les jumeaux les jumeaux de Longevin da nga koy xam les jumeaux de Longevin kii dem ci asamaan si ak ki des kii màgget kii tabaarakallaahu doon jeune te bi mu demee ba sidratul muntaha muy garab goo xam ne ndeysaan dañuy wax ne xob ya mu ngi toll ni nopp ñay nopp ñay yàlla def ci sa soppandiku yonent bi jàkkaarloog moom tiitul raful moom yonent bi saa la ba pare nag dégg benn wafdu benn benn benn benn benn benn riir mu laaj Jibril riir moom lu mu doon mu ne ko ñii de sa borom moo leen war a recevoir en même temps que yow mais ñoom ci suuf lañ leen di recevoir yow ci kaw lañ leen recevoir kon nga xam ne yàlla huwal awalu huwal aaxiru huwa zaahiru huwal baatinu wa huwa bi kulli shay'in alim te gis nga ñetti woo yooyu ñu wax yàlla gaa yi wax nañ ko yonent bi huwal awalu yàllaa fi jiitu parce que yàlla moom moo ne boole ay contrainte ayaa awalan yaa aaxiran wa huwa zaahiru wa yaa baatinan min nuurihi kalla naaziru baawta bi xurbin faktatamta bi zuhratin fa yaa ajaban min baatinin wa huwa zaahiru contrainte da ngay nekk ci biir fii rek oustaz ñu xam ne yaa ngi ci biir euh, résidence nga génn ci biti ñu xam waaye nekk ci kaw nekk ci suuf nekk ci biir nekk ci biti di dégg sori jige ku ko yàlla waaye nga gis ni keroog mu ngi leen war a recevoir moom yàlla war a recevoir yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi dafa jaaxal bindee yi waaye jaaxalul yàlla puisque nit koo xamante bi ne tabarakallaahu euh, la garo di doon wax l'homme total koo xam ne mënoo koo mënoo koo euh, jam ci dara am na benn saxaabi yu daan toog ci wetam nii bu yonent bi wokkoo mu bind wokk wokkatu mu bind bu bu bu tislee mu bind lu mu def mu bind gaa yi yow ne ko mais yow kii may ko jàmm nit la taxaw nii rek taxawu ko taxawu ko taxaw ba mu yeggee ci moom mu ne leen bàyyi leen ko lu mu bind yiw lay doon ku dul waxe bakkanam kooku yàllaa ko ko wax kon nga gis ni yow moom yonent bi sallallahu daanaka jibril euh, keroog nee na mënul dem te yonent bi sallallahu yegg ba ca yàlla te wax naa leen la asamaan si ak suuf si ak nit ñi am na différence nit ñi jinne yi leen ëpp jinne yi malaaka yi leen ëpp waaye suuf si jant bee ko ëpp suuf si boo demee ca kaw dafay mel ni benn benn pepp suuf jant bi li muy rëy rëy flamme yi muy émise flamme yooyu ñoo gën a rëy cent cent mille cent cent millions de fois waaw jant bi te jant bi moo ëpp suuf si te ñun sunu galaxie bii dañu yaakaar ni bon benn benn benn benn benn benn jant fi ne mais y' plus de cent mille millions jant yu fi nekk yoo xam ne boo demoon tiim ko dañu mel ni ay biddéew te jant bi li muy rëy rëy rëy rëy rëy yëpp nii galaxie moo ko waaw te galaxie yi dafa am lu ñuy tuddee ay trame cosmique mu mel ni ay njàmpe ay leer fa nekk yoo xamante bi ne ku dul yonent bi mën loo ko traverse sallallahu alayhi wa sallam ah mais mu dem ba toog ak yàlla yàlla recevoir ko. mu indaal leen ñu sërite bu rëy moom yonent bi waaw indil ñu julli waaw julli du dara lu dul loo xamante bi ne ni malaaka yi xeetu xeet yu xeetu jaamu yàlla ñu doon jaamu yàlla ci asamaan moom la yàlla jël doron ko ko jox ko julli ji malaaka yi am nañu yàlla bind ñoo xam ba leen yàlla bindee ba tey dañuy taxaw allahu akbar ba àdduna tukki duñ ko bàyyi am na ñoo xam ne dañuy rukkoo waaw subhaana subhaana lan subhaanallaahi al aziim moom la ñuy wax ba àdduna tukki duñ ko bàyyi am na ñoo xam ne dañuy jël seen jë sëpp ko ci suuf subhaana rabbiyal aala duñ ko bàyyi mukk am na ñoo xam ne dañuy toog di tudd yàlla yàlla jël yooyu yëpp ne ko ko ku tukki nag soo ñëwee war ngaa yóbbaale chérita te xam naa ne gis nga malaaka yi seen façon jaamu yàlla yooyu yëpp dinaa ko doronke boole ko ci benn julli bu ko sax xeet defee mel na ni ni ma jaa ni ma malaaka yi di jaamoo ci kaw asamaan yi jaamoo nañ ma noonu lay mooy mooy mooy julli sëriñ. macha allah kon nag tabaarakallaahu. tabaarakallaa mu jox ko ko mu doon juróom fukki julli. <laughs> Eh. ñu di ko wàññi. Moussa naan ko dellul sa xeetu mënuñu ko booba duuf daf ñu yërëm yërëmuñu. ndax moom dafa bëggoon yàlla gis ko te yàlla gisu ko. yàlla wëlbatiku recevoir yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ca mu gis ku gis yàlla bànneex boobu moo ko jot ba bu ñëwee rek mu ne yonent bi dellu gaa yi mënuñu ko ba mu des juróomi julli mu ne yonent bi dellu yonent bi ne ko nag man am naa kersa wax dëgg neex yàlla yàlla ne ko nag gis nga juróom fukki julli yooyu sa juróomi julli yi gaa yi ko ñu ko defee convenablement di ngeen am yoolub juróom fukki julli macha allah mu ngi noonu Serigne baa ngi noonu Rayane gaa ngi noonu. Mm. Euh, ñuy fàttali ko juddug yonente bi Cheikh Ahmed Sall euh, fàttali ñu Rayane gi waaye fàttali ñu li nga xam ni mooy Serigne bi nga xam ni euh, moom la yonente bi indaale muy waxtu yu juróom. Mm. ñu war ci farlu nag bu baax a baax mm. xam naa ne damay bëgg ñu delluwaat tuuti rek ci ginnaaw. ci wàllu yi nga waxoon. Mm-hmm. ngir mission bi nga xam ni moo taxoon yonente bi ñëw fii mooy defar jikko yi. waaw tey nag yàqu-yàqu yu bari na. gis nañ ni jikko yu bari suppeeku na. yi xew ñaaw na waxante bi defante bi te wax nga léegi rek mhm. ah, ci jikko yenente bi bokkoon na ku ko tooñ mu jéggal la mhm. bokkoon na daan euh, dimbali ku mu tane mhm. am yërmande ci jaam ñi waaye tey mu mel ni safaan ba la ñu gis ñi dañuy yàqante dañuy defante dañuy waxante lu ñaaw ah, ñi man dimbali wuñ ñi mënul loolu euh, tey jii lu ko waral ah, loolu tamit euh, dafa am ay ay vertu ak i jikko yoo xam ne dafa am jikko yoo xam ne nit da ko war a jikkoo yonent bi sallallahu nee na jullit mën na def lépp waaye jullit warta fen te léegi fen dafa yomb ci réew mi fen xam nga duural mooy sosal nit ki waaye fen fen yonent bi nee na jullit du fen waaw mais léegi xoolal dañ koy kafe sax dañ koy kafe dañuy fen théâtre kat yi dañuy fen ñëppay fen wallaay di ko fowee di ko foowe mm-hmm. loo wax génn ci loo wax génn ci di fen di fen fen baaxul def ah te jullit waru koo def jullit waru koo def mm-hmm. yonent bi daf koo tere mm-hmm. yonent bi dafa tere itam njort yu ñaaw njort yu ñaaw njort yu ñaaw baaxul waaw nit ki bu génnee ci bisturoo sax naan ba màndi ah warul tax yow nga di ko di ko di ko di ko di ko gëstu waaw mu génn fa rek nga ne kii ah daa màndi wala kii kat génn na kër diw góor la wala jigéen nga ne doon mooy yàlla yenn njort yu ñaaw baaxul nee na bàkkaar la waaw yonent bi sallallahu tere na itam tajasus di jéqati nit ñi comme ni ñuy def nit koo xamante bi ne wéet na juum ci boppam réseaux sociaux yi jël ko tasaare ko Mm-hmm. imma daa defar peppam neen mm-hmm. wala mu def loo xam ne jaaduwul mm-hmm. def ko diggam ak boroomam wala mu def ko ci làqatu ñu feesal ko feeñal ko bari na loolu léegi loolu baaxul sëñ bi gis nga ab jullit warta doon jullit boo xamante bi ne loo def ci lu bon mu sulli ko wone ko loo def ci lu baax mu gas ba mu xóot suul yonent bi sallallahu alayhi loolu def ko tere yonent bi sallallahu dafa tere woon itam ni ab jullit ci wàllu boppam warta tabaarakallaahu génne kàddu gu bon wax nit loo xam ni danaan su ma mënoon a génn réew mi xaru daganoon ma xaru waaw xoolal lool bu xaru daganoon dinaa xaru bu ma mënoon a génn réew mi génn réew mi te kàddoo koy def yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dafa dafa tere lool ab jullit warul génne tabaarakallaahu lu bon puisque lay defar ak mbokk ak mbokkoo lu koy defal cër benn saxu ci karaw digg làmmeñ di wax lu baax digg làmmeñ waxulu li naasi xusnan alquran a ko wax te isa chita an taxya saliman min al aza wa xazuka wa arduka sayinun lisaanuka laa tazkur bi awra tamri awra jàmbur nga di ko génne lu sayoon nit da ngay màndu waaw baaxul baaxul dégg naa ni benn bis xaw ma Seydina Omar la wala Seydina Aboubacrine Omar je crois bien day dem dégg góor gi euh, soxna si di wax ak doom ji dañuy jaay soow ñoom ay meew lañuy jaay doom ji naan ko nanga ko njar mu wax ak yaay ji njar ko ndax ñu am bénéfice naa xam mu ñëw jël nopp bi dégg déggatu nii def nii daal di dem tëb bett leen dem ca kër ga ne leen yéen li ngeen def di yoon ñu lan la mu ne ah dégg naa leen fii ngeen di wax ne nangam ak nangam da ngeen di jar même da ngeen jar nag nangam mu ne ko ñu ne ko ah xam nañ tooñ nañ waaye yow nga ñaari yoon waaw ndax ñun de ñu ngi wax ne dinañ njar meew meeg son bi pour jaay waaye yow mu ñu déggatul ba pare ñëw dugg ci suñu biir hmm. yow yaa gën a def loo xamante bii ne bu fekkee bàkkaar ab na am na mooy kon zéro zéro kon dem leen ma dem kon nga gis ni nit ki warul jéqati nit ki nit ki itam war nga dimbali sa mbokku jullit ci loxo hmm. koo taree war koo dimbali hmm. dimbali ko léegi nag Sénégal dëj nit lañu man mais mënuñoo faj ma malaat ku feebar ñu faj la dimbale ba nga ba nga jóg. Hmm. déedéet hôpital boo fi tëddee duñu la seeti duñ la jëndal ordonnance da ngay dee na gaa jënd nag hmm. jënd ceeb jënd dëwliñ jooye jënd mbiskit lu ñu am génn ko mais kooku am maana li nga koy dëje genn wàll gi boo ko defoon ci moom mu jóg. Hmm. am na ñoo xam boo leen demandé service ci biir nit ñi. loo bëgg ñu defal la ko mhm. soo wéeteeg ñoom à huis ñaan leen nit ñu lànk yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg loolu lool kon jikko jooju war nañ koo seet mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggoon na itam isaar isaar moo joxe loo xam ne ni tabaarakallaahu mhm. da nga koo gën a soxla ki koy jox taawun moo gën a moo oyof na taawun muy solidarité mais isaar gën a garaaw xare tabug ba looloo daloon ndaw sax jam nañu jullit yi ñu nga tudd tëdd di yuuxu di àppaat mu yor benn potu ndox di dugg ci jullit yi bëgg ko jox am ku ñëw ne dafa soxla maa ndox laa soxla di yuuxu mu ne nañ ko jox pot bi ñu jox ko pot bi mu demee ba muy naan mu gis keneen koo xam ne nee na dafa soxla ndox mi mu joxoñ ko kooku ne nañ ko yóbbu ci kooku ñu dem ca kooku kooku téye ko ba bëgg ka naan ñaareelu nit ki mu dégg keneen koo xam ne mu ngay yuuxu ne daa bëgg ndox mu ne nañ ko ko jox ca ñetteel ba ba muy ñeent ba juróom ba mujj gi juróomeel bi ba mu déggee keneen ni mu ngi yuuxu pour mu laaj ko na ndox la bëgg mu ne nañ ko fa yóbbu bala muy dem kooku faatu la ñoom ñëpp faatu nañu te kenn naanu ca ndox ma waaye ñaw tey dina xam ne du ma moromam tey mu dee hmm. di rosi rosi xam nga rosi ñaari façon rosi am hmm. rosi nuggal ak rosi saaf dëwliñ muy muy satatati ki nga xam ne day tàngal yam ba mu tàng fas yéene rosi kooku day ñaawal ay dëkkandoom ndax xam na ni lislaam nee na la su fekkente bi ne sëriñ da ngaa am di jënd yàpp jëndal jëndal beneen kilo jox Amadou Sall njigéen amu ko soo ko amul soo toggee yekkal ma soo ko amul bari la ñeex mi yónnee ma ndax bi ngay rosi xet ngay jóge ci sa kër rek di ñëw ci sama yaay bakkan am na ñoo xam ne loolu lañ ciy wax dina xam ne du ma moroomam na dëwliñ ji tàng ma rosi xet gi dem këram mu xam ne du ma moroomam waaw l'islam dafa foor hmm. gis nga boo amee sa garab mu nekk ci sa kër banqaas yi nekk sama kër lislaam ne la bépp branche boo xam ne nii dafa féete ci sama kër lu mu meññ maa ko moom lu mu meññ rek maa ko moom maak sama njaboot ndax xool gi ñu koy xool waaye samay xob maa koy bale yow doo ko bale waaye sa date yow yaa koy arrosé waaye branche yi nekk sama kër moom moo ca dara maa ko moom gis nga lislaam mm-hmm. booy taxawal étage yonent bi nee na demal nga waxtaan ak sa dëkkandoo ne ko dama fas yéene yëkkati taaxum kaw ngir tiim gi nga koy tiim akit léeg-léeg mouchoir yi dugg këram poussière bi nga bi dem ci këram akitam itam tabaarakalaaw yeneen ak yeneen ngelaw lu baax li nga koy li nga koy xaj demal tàgg ko wax ak moom mu tax lislaam lu baax rek la xam yonent bi jikko yu baax rek moom la moom la moom la moom la feese moom sallallahu alayhi wasallam da daan jéggale am na waa joo xam ne dama koy nettali tout le temps daan ko daan gasal ay kàmb surux léegi léeg ay dëgg la koy defal ak lu nekk lu nekk mu def ko ci bon gisu ko ba mu mat deux semaine wala mois mu laajte ñu ne waa ji daa feebar mu dem seeti ko doom ji bi mu ko gisee ne ko bàyyi lu xew mu ne ko sa bàyyi laay seet si mu dem ne ko mu Muhammadan fii ñëw mu ne ko ak li ma ko def yëpp lu mu fi wut si yonent bi ñëw ne ko damaa gis ni gasalatoo ma ay kàmb surux tabaarakallaahu sottetoo ma ay ay sëbiri du jën ma laajte ñu ne ma da ngaa feebar ma ñëw di la ñaanal yàlla ngir nga jóg kon wa bi xayrihi wa bi xaylihi ca la waraa yonent bi sallallahu dafa dafa daf di yërmande yërmande ci lépp moom sallallahu alayhi wasallam waaw dafay dimbali nit ñi mësul dóor loxoom boobu mësul dóor kenn kenn kenn kenn kenn moom yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. waaw yërmande gi nekk ci moom nag tabaarakallaahu kenn xamul lu mu toll. macha allah waaw da daan jàppale jullit yi. Mm-hmm. di leen dimbali. ci lépp moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon ci njabootam mi ngi noonu jikko yaa ngi noonu jikko mm. yonent yi baa ngi noonu dénkaane ma yaa ngi noonu amoon yërmande ci jaam yi waaye daan dimbali daan jéggal ku ko tooñ di saafonteeg mbokk yi tey digle lu baax loolu rek la ñu war a roy waaye yi xew léegi ah, dafay mel ni safaanoon na ak yonent bi eh, li nga xam ne mooy am njàngaleem wala ay digleem kon mbokk yi nan delluwaat ci njàngaleem yonent bi hmm. ndax loolu moo ñuy jëriñ loolu moo ñuy may ak texe ah, bu ko defee oustaz ba tey beneen actualité duñ ko ah, goo xam ne génn na fan yi wax ci kilifa diine yi ñu bari di ko ñaawlu hmm. kooku it bokk ci kilifa yi réew mi bi ngeen déggee kàddu yooyu yan yëg-yëg ngeen ci am xam nga jullit moom hmm. bu dul sax wax ci kilifa ab jullit li mu war a wax lu baax rek la war a doon yonent bi salaa salaam day wax ni nit dafay jullit dafa war a wax lu baax wala mu noppi nit nag bu fekkente bii ne ah da ngay ŋàññi sa mbokku jullit ci muflis yi ngay bokk yonent bi dafa toog benn bis daal ne manil muflis ana kan mooy ku perte kan mooy ku perte gars yi ne ku perte mooy ku ñu saisir alalam jël ay bien mu ne leen déedéet ku perte dëgg mooy jullit bi nga xam ne nii daan na julli comme ni mu war a jullee natt azaka dem màkka def lu baax ba ñëw ñu àtt ko ne ko da nga war a dugg aljana ba mu demee ba diggante mag aljana xasab dox ci am ñu ñëw daan ne malaaka yi ñëw ne diw war sa bokk ñu ne lu tax ñu ne xat satama hada moo ŋaañ ñoon diw moo ko saaga ñu ne nañ jël ci ay julleem ak yu waram fay ñu jël ay julleem ak i woram di ko faye ñu ne jeex na ñu ne déedéet waa kala maa réew mi alalu réew mi moo ko lekkoon wala mbootaay gi ñu ne nañ jël ci lu baaxam ñuy fay ñu jël ci lu baaxam di fay ba mu jugee amatul yu baax ñeneen ñëw ne wasafaka dàmm hada moom ma tamoon dëmb moo def nangam nangam amatul lu baax li muy li muy joxe léegi dañuy ñëw ku koo xamante bi ne tooñ nga ko ñu sippi bàkkaar yu ni toll ñu sëf la ko ku ñëw jàmbat rek ñu jël lu diis pesé ak équivalence ba sëf la ba nga diis ñu watat yóbbu safara kon nag nit da ngay wax lu baax ŋàññ baaxul ab julit lu baax la war a wax warta xaste warta wax wax yu bon warta saaga puisque gis nga ñun suñu alal ak suñu deret ak suñu der dafa xaram ci ci ku mu mën a doon ci ñun ab julit deru deru mbokkum jullitam mm-hmm. ak alalam ak deram yooyu dafa xaram ci moom mm-hmm. rawatina nag ngay wax ci ay kilifa mm-hmm. tabaarakallaahu ah man déggoo ma ko xaw ma lu mu wax waaye tabaarakallaahu loolu moom wax rek ci sa mbokkum jullit rek wala sax koo xamante du mbokkum jullit ab ab nit rek la nit kese nga wax ci moom lu juun rek loolu sax daanaka catastrophe la waaw tabaarakallaahu macha allah am na solo jërëjëf euh, Cheikh Ahmad Sall Ndiéguène kàddu yi am na solo Euh, dénkaane bàyyi noonu ñu royaat yeneent bi dellowaat suñu xel euh, ci jikko yi nga xam ne moom la amee woon waaye moytu lépp loo xam ne lu ñaaw la te gën a farlu ci lu rafet ak digle lu baax ak di ko def euh, bu ko defee ñu gërëm la bu baax xam nañ ne xat-xat yi bari na ndax yéen a ngi coordonné liggéey bi te macha allah léegi ñu war a génn ci tànt bi ngir déglu kilifa gi message bi nga xam ne fas yéen na ko lancé ci édition gàmmu gi nga xam ne mooy 2024 kaddu yu mujj yi lan lay doon kaddu yu mujj yi daal moo di suñu thème central mooy dépravation des valeurs culturelles dégg nga et macha allah quelle donc quelle solution dégg nga dégg nga pour euh, tabarakalaaw nit ku mën a dund dund gu na tax loolu ci jikko yi rek lay delluwaat ko defee nag nit ñi nañu changé waat seen taxawaay jame jamey rey yi bari na mais nag l'islam saafara woon na ko démb wala kum fil xisaasi xayaatun yaa ulil albaab waaw donc nit ñi nañu dellu siwaat dellool seen xel ni ñuy ute di ko sàkkoo alal nañ ko xoolaat yaa ngay tromper nit ki yaa ngi jël alalam yaa ngi rayee yaa ngi def lu nekk yooyu ab jullit war ko def te ñu góorgóorlu bu baax a baax a baax gàmmu gi daal dañuy ñaan ren mu soppi Sénégal yëpp ci jukko yi def fi apaisement def fi jàmm di leen gërëm bu baax itam yéen itam di gërëm itam Euh, le président Diomaye son excellence déplacé wu na ñëw na ba fii kër Alaaji Ahmed Baro ndax ñun ci ci ci ci taalu démb yi lañu bokk ñun suñu kër benn kër magu ko te sunu sunu juróom-ñaari maam yëpp mën ngaa dem ba ci suñu juróom-ñaari maam yëpp ci tarixa tijaan la ñu nekk waaw te bariwaan na foofu dugg ci kër yi boo compté benn ñaar kooku dugg na ci tarixa xaadir wala mu dugg ci leneen ak leneen waaye ñun yàlla dimbali nañu ñoom ay centenaire lañu muy alaaji mën jigéen alaaji mën boro medun maat te ñoom ñëpp ci tarixa tijaan bii la ñu faat te ku ci nekk kee cent onze ans kii cent sept ans kii cent nangam nangam nangam donc nag tabaarakallaahu bu ñëwee déplacé wu ànd ak son gouvernement daan fi ñëwit dégg ngeen ko waxal ko boppam daan fi ñëwal boppam booba amagul amagul lii mu am tabaarakallaahu di fi ànd ak tabaarakallaahu euh, monsieur le président Sonko si di fi ñëw di seet si kër gi di fi dox yam fay dox ba yàlla àtt lii ñëwit mu ñëwaat tabaarakallaahu li ñu wax ni ñoom ñoo ngi jooyanti ñoo ngi jubbanti loolu dëgg la kon tabaarakallaahu ñu ngi koy ñaanal bu baax baax yàlla jàppale ko bu baax a baax ci li nga xamante bi ne moo di tabaarakallaahu mission bu diis bii di leen sant yéen di leen gërëm ci accompagnement bi parce que ñun la ñu jox li nga xam ne ni mooy chargé de communication président d'organisation Serigne Seynou teg ko ci suñu loxo waaye bu réussir ñun suñu mission yàlla ak yéen la yéen yéen ñu ñëw accompagner ñu accompagnement boo xamante bii ne yàlla rek a tax ngeen def ko mu jaamu yàlla ren gis nga ko tabaarakallaahu euh, demandé nañu pour yéen itam li nga xam ne nii mooy ordi yi muy ordinateur yële pour bu ko defee seen liggéey mën a baax wàcceel leen li nga xamante bi ne itam tabarkalla ah euh, LS bi pour ngeen mën a liggéey bu baax a baax yéen a ngi ñuy accompagner ci lépp toll ñu ko ca réception ba fële ci salle ba ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax oustaz mm. di yàlla ñu yàgg fee tase di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal yàlla itam waa waa waa RTT TV. seen taxawaay patawarkalaaw ñoom it rafet na bu baax a baax a baax. Euh, prestige ak yëpp rek ñu ngi leen di sant ah. di gërëm. Mm-hmm. yal yàlla jàppale leen. ci barke yonent bi Ahmed Sall Ndiéguène euh, moom it ñu sant ko bu baax ci coordination bi macha allah mm-hmm. euh, laata bis bi dañuy dégg. taxawaay di jokkook moom ci wàccaay yi ah, tubaarkàlla te at mu jot noonu lañ koy àndeek moom waaye ñu gërëm bu baax presse bi nga xam ne it ah, ñoo ngi fii ñu fekk leen fii ah, presse locale bi presse euh, euh, internationale beeg ñoom ñëpp ñu gërëm leen waaye gërëm suñu confrères yi nga xam ne mooy prestige ñoom it fekk lañ leen fi ñuy amal liggéey bu am solo hmm. ñu nuyu leen nuyu euh, kilifa gi Pape Doumbia waaye nuyu Saturne sama xarit ñu jaajëfal leen bu baax ak équipe technique bi nga xam ne ànd nañoo ak moom jox leen rendez-vous incha allah ci yeneen jotaay incha allah jërë ngeen Thank you.